salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk internet yi ni seetaan à travers rajo Dakar international gannaaw ba nu santee sunu borom subhaanahu wa taala di julli ci jaamam ba di sang ci ñëpp di yonti yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla moom mi dara tawul yàlla na sam borom dolli def ci réew mi jàmm yàlla na ko sunu borom tàmbalee ci ñi nga xam ne ñooy sunu kilifa ñuy xalif généraux yi di jaal kilifa yi nga xam ni jóge nañ ci réew mi di ñaan sam borom dolli leen yërmande te taas ñu seen barke barke yonent yàlla Muhammad leen fàttali ba léegi yéen a ngi ànd ak seen mbokki taalibe seen xarit seen soppe cuun bëgg bàmba seen émission jotaay xam-xam saa su ne nag wax fa dëgg yàlla ni mu daan demee rek lay demee xam-xam lañ fi waxtaane njëriñ lay lan fi waxtaane waxoon naa leen nag comme yéen a yàgg laajte ki ni dalal ngeen laaj ñu ku nu gëj a gis <laughs> macha allah ku ngeen gëj a gis ñëpp di ko laajte ñëpp di ko seet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 gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nuyu yéen ñuy seetaan ah, di la nuyu Serigne Thioune hmm. ah, di la dalal jàmm di ñaan yàlla na yàlla dolli sutura di ñaan lépp loo xam ne waxtaane nañ ko fi muy xam-xam yàlla mi may dégg topp yàlla yàlla may dégg topp te def ci barke ci barke rasulullahi salallahu alayhi wa sallam macha allah sëñ Jibril <coughs> ñu gis fan yële hmm. ay vidéo yu daw yoo xam ni mu mel naka da nga woote woon jotaayu ñaan hmm. lan moo waraloon jotaay boobu fa tabaarakallaahu yàlla moo dogal euh, bisu ñaan la woon ñu woote woon ko sunu kër ngir ñaan ci réew mi ci réew mi lañu bokk ñuy doomi réew mi fu ñu mënti am Sénégal moo ñu ko gënal ndax fii la yàlla dogalee ñu juddoo fi fa tabaarakallaahu fii lañ jàngee fii lañ yaroo Sénégal nekk guddi goo xam ni kenn ku ne am nga ci responsabilité boo war a taxawee fa tabaarakallaahu ñi nga xam ni euh, ñoo nekk ci wàllu santé. Mm-hmm. xëy na réew mi toll na foo xam ni ci wàllu faj euh, ak feebar bi nga xam ne dugg na fi lëmbee àdduna. Mm-hmm. muy coronavirus ñoom ñoo ngi taxaw ci wàllu faj. Mm-hmm. fa tabaarakallaahu ñi nga xam ne ay économiste lañu ci wàllu koppar la ñu xam ak finance. ñoo ngi fexe ba réew mi du nekk ci crise ñun ñu am taxaw bu ñu war a taxawee. muy ñaan loolu lañ mën. Eh, fa tabaarakallaahu ndax yàlla moo ne adduuni astajib lakum hmm. ñaan leen ma ma may leen hmm. fa tabaarakallaahu te bëgg sa réew xubbul watan min al hmm. bëgg sa dafa bokk ci gëm yàlla te fi réew mi toll musiba yi nga xam ne mi ngi daw di ñëw ci réew mi eh, fa tabaarakallaahu ak jafe-jafe yi nga xam ni réew mi ngi koy dund ñu yëg ni ñun war nañoo woo sunu ay mbokki taalibe nañun ay doomi daara nañun fa tabaarakallaahu ñi nga xam ni ñaan la ñu xam mhm. euh, ñu bokk ñun ñëpp ñaan ngir jëmmi yàlla yàlla aar Sénégal mhm. yàlla sàmm Sénégal mhm. yàlla sàmm réew mi waaye fa tabaarakallaahu yàlla suqali réew mi ba gone yi nga xam ni bëggoon nañu jël gaal gi dem di tukki lu mel ni quatre cent personnes wala lu ko deec fa tabaarakallaahu lu mel noonu dootul amati ndax koom rek la wuti koom googu bu amee fii dootuñu demati ñuy aw ci yoon yi nga xam ni mën nañu wax ni wallaay ku ci aw sax amoon lu la gënal. Mm-hmm. géej ni mel amul bànqaas nga dugg ci. Mm-hmm. ni yaa ngi wuti ji teraanga kooku ñàkk na pexe. dëgg la kon nag ñu yëg ni ñun war nañoo ñaan. Mm-hmm. Uh, fa tabaarakallaahu ba yàlla mi nga xam ne mooy aar. fa tabaarakallaahu aar réew mi. ndax nag matukaay yu ñu mën a jël barin baax na. feebar bi masque lépp baax na. waaye li ci mooy ñaan. mais tamit sa njëriñ li ci jiitu mooy ñaan pourquoi ñaan ak tamit est-ce que ñaan solution la. waaw fa tabaarakallaahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu waxoon ni ñaan mooy gànnaayu jullit. Mhm. fa tabaarakallaahu euh, biñ ne ñaan mën na lu ne. Mhm. Mawlana Cheikh Ibrahima Niass dafa ni euh, fa tabaarakallaahu ñaan mënu lu ne waaye def na lu ne. Mhm. fa tabaarakallaahu musiba yuñ toll nii. matukaay buñ mën a jël baax na waaye dama lay wax njëriñu ñaan. 14 18. Mm-hmm. fa tabaarakallaahu bi tubaab bi jaaxlee ci guerre gi. Mm-hmm. dañoo dem ba Tiwaawan. Mm-hmm. Cheikh Seydi Hadji Malick. radiyallaahu taala anhu ni ko dañoo bëggoon nga ñaanalu ci guerre gi mu arrêté. fa tabaarakallaahu mu jël ay mag yéen man aw ma jot. waaw mënuma dem ba màkk di ñaan aw ma jot. jël nit ñoo xam ne maa leen yaral sama bopp. te xam naa li man def naa ko ci ñoom. jële leen fi ñu dem ba makka ñaan yalla fa tabarakallah guerre bi arrêté 39 45 quarante ñëwaat ñu defati nonu mo xam président bu fi mën ti jaar xam nga luy ñaan président ba ca sengor alu tax mu làqoon ci ginnaaw sëñ Fallou Mouhamadul Fadil mbacke ma yaakaar ay wóllëre la non ay wóllëre eh. déedéet réew mi dana tollu fo xamni ne mm-hmm. dana toll foo xam mm-hmm. du fa tabarakallah du ay pexé ak i technicien ñoo ci mën dara ñaan moo ci mën dara xam nga ñun ñaan dafa am lu ñu defal. Hmm. ñun ñaan moo ñu jox suñu indépendance. indépendance du Sénégal. 1960 indépendance bi ñuy am di ci tudd fa tabaarakallaahu ñëw dégool ci Sénégal. Hmm. indépendance bi ñu am di ci tudd ay Valdiodio Ndiaye. Hmm. dañoo am mag ñu maanut ñoo xam ne dañoo xëccewul àdduna. mais sëriñ bi gars yi ay ay pancarte la ñu yoroon de. kese taxul ñu jot indépendance xam nga dégool dafa ñëw Sénégal. waaye njëkk loolu ñaan da jiitu ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba. bañ ak tubaab yi ba dem ci géej gi. Hmm. Gabon maa yombe wiiri wiiri. Hmm. kooku lu taxoon mu doon bañ. ku ko yilif. Ah, indépendance la bëggoon ku ko yilif la doon bañ ab tubaab darul nangu Serigne Touba darul nangu ab tubaab yilif ko. Hmm. ku mel ne Seydi Hadji Malick Sy. wàcc lépp. dem lu mel ni Tiwaawan. sañ ci jagsaaw di jàngale jàngale. di jàng ak jàngale. di bay di dunde kooku dana nekk ci réew di seetaan tubaab di ko yilif. alaaji Abdoulaye Niass ay Maba Jaxu Ba ñii xeex nañoo ak tubaab bi ñii yor seen kurus dégool ñëw Sénégal dafa am ñoo xam ne li sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al daan wax naan ñi ci roq bi bu ñu jaaxle ñi ñi ci biti bu ñu jaaxlee ñi ci roq bi lañ jëm dëgg la ñaan lu nañu Senghor xamoon na li ñu am ñun xamoon na li mag ñi am ñu ñaan dégool ñëw Sénégal boo waree Afrique ñuy jàng histoire maa ngi leen maa ngi ci lii. am na ñu bare seen indépendance ñoo ngi ko am ci arme par les armes ci ay guerre yu métti lañ jotee seen indépendance. de ñëw see ñëw Sénégal. Mm-hmm. ay Valdiodio Ndiaye ay nit ñu jàmbaar la ñu nag moom. Mm-hmm. da nit. Mm-hmm. ay nit ñu jàmbaar la ñu woon ndax ku toll ni de ci place de l' indépendance mu toog di def fa tabaarakalaaw discours. ñu yëkkati ay pancarte bind ci nu voulons indépendance sunu indépendance la ñuy laaj. loolu tax na ñu jox dañoo bëgg suñu indépendance rek. am na réew yu ko laaj ci colonisation. Mhm. ak coloniser nit ni mu neexee. dëgg la ni leen yéen ñi téye yi. Mhm. lan ngeen bëgg seen indépendance. Mhm. jël leen ko ndaw indépendance bu yomb. ba léegi fa la jaaree nii. lañ jaaree am suñu indépendance. moo tax yàlla wax wa ida salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daa'i yow yonent bi sa jaam buñ la laajee ana yàlla yàlla bi ñuy jaamu anamu. Hmm. ne leen yàlla boobu ku jege la ku jege la waa ku jege la ku ko jaa ku bëgg na ku ko julli bëgg na kuy julli. Hmm. wala bëgg na ku woor weeru hmm. wala bëgg na ku natt azak. yàlla waroon mënoon na wax loolu. dëgg waaye dafa ne wa iza salaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai sa jaam bu la laajee yàlla bi ñuy jaamu am anamu ne leen yàlla boobu noonu fa tabaarakallaahu yàlla bu jege la waaye ku ko ñaan dalay may ba mu nekk jege la. waaw lam tëjuwul mooy ku ko ñaan. dalay may yàlla li li ko gën a neex. Mm-hmm. li ko gën a neex. Mm-hmm. mooy ku koy ñaan yàlla. adduuni mm-hmm. astajib lakum. kon yàlla wute nag nit ñi déedéet xam nga nit lim gën a bëgg. nit loo ko gën di ñaan mu lay gën a jëppi. wax soxla tey wax ko soxla suba bu soxla sa ñettee mu tàmbale am naan waaye diw daa tàmbalee baadoo la yàlla noo ko gën a waxee soxla noo gën a mën a jàmbatoo ci moom mu gën a nekk sa waay ñaankat yi dëgg ñooy waayu yàlla hmm. xoolal li wax adduuni astajib lakum ñaan leen moo may leen hmm. ni inna alladina yastakbiruuna an ibadati sa yadxuluuna jahannama daaxirin yow mi nga xam ne da ngay toog di rëy rëy naan du ma ñaan yàlla hmm. naan ku sa mbir day dox dafa war a dox yàlla moo yor ñëpp yàlla nee na yow moomu noonu nga xam danga ngaa rëy ci ñaan ma sa mbir du dox dangay ngay suufe doo diiru dara ba jam ko doowu dara ba mu sotti ambassade boo taxaw duñ la may visa. kon sëriñ bi ñaan nekkee farata la. mais mais mais lu gën a nekk farata ñaan amul xoolal xoolal lam ci teg. Mhm. sa yadxuluuna jahannama daaxirin fii ci àdduna dama lay tardeloo fii ci àdduna sa dara dox waaye keroog yowmal xiyaam dama lay dugal safara non seulement safara waaye bi gën a suufee ci safara yi. kon nga xam ne àdduna. Mhm. ñaan rek ngoo fi nekk. Mhm. ñaan du caaxaan. ñaan bu doon caaxaan fa tabaarakallaahu yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, dana nekk euh, fa tabaarakallaahu ci xare badar mm. di ñaan yàlla yàlla may ko buroon ñaan du caaxaan yàlla yonent bi dana toog di ñaan Umar ak Ababacar dugg ci diina ji ñaan du caaxaan Ousmane jëfam ju rëy jëfam defoon mm. ko ci lislaam mm. yonent bi fa tabaarakallaahu guddi la toog di ñaanal Ousmane ba fajar di xar ñaan dafay yàgg am ñaan du fi jóg mukk xoolal Cheikh Cheikh Ahmadou Bamba. ñaata bay la té ñaata téere la bind. une tonne cinq cent ñoo ngi wax lu ne. waaye lim bind ñun mënee su ko xam. lim ci way ci ñaan yàlla. xeetu tawasul yim ci def. dama ciy jël benn rek. yaa maalikal mulkiya. yaa man jala an qawadi. irham jamii alwara yaa xaadi rada. ndeysaan. yow mi nga xam ni hmm. yaay buur te beneen buur bu dul yow amul hmm. yow mi nga xam ni ku am nguur ci la ko amee hmm. yow mi nga xam ni yaay fal buur yaa leen di folle est-ce que xam nga ku yàlla da nga falu da nga folleeku yàlla rek moo fiy moo fiy falu falu goo xam ne du am folleeku te kenn falu ko nag moom waaw moo fal boppam moo tax mu ne ko yaa malikal mulki yaa yaa man jalla an qawadi irham jamia al wara maa ngi lay ñaan nga yër nga nga yërëm lépp luy dukkat ci ko suuf loolu Serigne Touba dimension am hmm. fa tabaarakallaahu moo tax euh, lim naan yàlla jël na ruuxu mindee fi teg ko sama loxo hmm. irham jamil ara irham jamil alwara da koy da koy firi uh-huh. waaw irham jamil alwara da koy firi hmm. ku toll ni Cheikh Ahmadou Bamba ñaanal nit ba xam ne moo waratul ñaan nit ñaanal nit moom li ko li ko yàlla yónni euh, nit nit ci gën a tuuti ñëpp xam nañu ñoom jaaje yoro Hmm. kali kali tàkku hmm. ñooñu ay xeetu jinne lañu woon kaaka yaro hmm. ñooñu ay xeetu jinne yoon yoo xam ne ay taalibe Cheikh Bamba lañu waxoon naa fi sama benn waxtaan man leen am na jinne joo xam ne mi ngi fii ci Louga taalibe Cheikh Rafal la yooyu taxuñoo jóg fa tabaarakallaa waaye pour wane Cheikh Ahmadou Bamba fi mu toll est que xam nga xutbu zaman boo ko nekkee boo nekkee fi nga toog boo nekkee Sénégal mbelentaan bay daw màkk di mhm. dox màkk da ay ay ay ay ay ay jéegoom jéegoom da lay fi nga toog te boobu yaa ngi Sénégal boobu yaa ngi Sénégal lépp lu ne ci kaw suuf da lay concerné moo tax mu ne ko irham jami alwara xar ak bëy mbelentaan kenn génnul kenn génnul yàlla yërëma lépp luy du ko ci kaw suuf est-ce que xam nga da nga toll foo xam ne ci yàlla da nga rus a rey mbelentaan <laughs> kon pour wan ni la uh-huh. ñaan Serigne Touba rus naa ñaan yàlla lu yàlla amul dëgg la ñooñu dañoo xam yàlla dëgg la ndax xam taarifu ni qabla an taabuduni fa in lam yaarifu ni fa kayfa taabuduni xam leen na balaa ngeen may jaam boo leen ma xamul naka ngeen may jaamu ku mel ni Cheikh Seydi Hadji Malick Sy keroog fa tabarakallahu alaaji Hamidou kan ca Kaolack mm. nga xam ne Cheikh Seydi Hadji Malick moo ko defar mm. yóbbu ko biir kawlak muy wasifa mm. di wasifa suba suba ngoon bolokaar nekk fa fa tabarakallahu ni ko nag wasifa bi da nga koy arrêté ndax daf may tànqal ah. waaw bolokaar ca Kaolack ñëpp xam nañu lu mel noonu. ni ko wasifa bi da nga koy arrêté ndax daf may taxal mu jël otoraay dem wax ko Seex Seydi Xaaji Malik mu ni ko nauzu billahi min shari kufaari wa min shari nasara wa min shari salatini wa min waziri wa jini suma zi qadin fa min wa ayni wa ayni wa shayatini wa zalimin wa munafiqin wa zi hasadin wa man tafasaha mina nasara wa man qafaw tariqahum ya llahu ya qawi ya man qala ad'uni inni da'awtu kaza xaw fa xusbi yadi ya jala ali bayna alkaafi wa nuni waxut ak kenn wax woowul kilifa bolokaar woowul kenn daa tàllal loxoom ni ko yàlla daan naus billahi min shari kufaari ñoo ngi muslu min shari kufaari ci ci ci xayu ku weddi yàlla wa min shari nasaara mooy mooy mooy xayu tubaab wa min shari salaatini wa min waziri wa jine suma zi qadin fa min wa ayni wa ayni wa shaatini dañ ko jàng suba jàng ko ngoon ñu woo bolokaar affecté ko ki mu doon déranger ki mu doon déranger ni nga léegi da ngay tux da ngay génn sax Sénégal kon ku génn Sénégal ay ay ay fat naasira làq bi làq dootu ko déranger te. léegi ma macha allah sëñ Jibril nga wax ñaan dimension bi mu toll. Mhm. ñun nag ñuy yéem Cheikh Seydi Hadji Malick di yéem sëñ Tuubaa ñoom ñuy yéem ñaan. Mhm. léegi kon réew mi ban taxawaay la ñu am la war am ak ban jàngat la ñu am ci loolu. Euh, fa tabaarakallaahu ñu xam ne ñu Sénégal amuñu richesse. Hmm. ñun amuñu fa tabaarakallaahu koom. amuñu richesse déedéet ñun. or beeg pétrole bi. ñëwagul kañ la fi. te booba léegi ñoo ngi dund coronavirus bi dañoo am hôpital bu doy ñaata nit ñoo feebar ñu génne leen fi yóbbu dañoo am médecin yu doy mhm. te nee nañ coronavirus ñoo ngi félicité Sénégal ndax moo jël ñaari ñaari deuxième ci àdduna bi ci ni mu xeexee coronavirus <laughs> ma ne leen loolu uh-huh. dafa am lu ko firi xam nga du takku mask déedéet du gel bu doy déedéet ay réew ñooñu may gel mhm. ay réew ñooñu may masque matériel yi yi ñu mm-hmm. am li ci ëpp ay réew ñoo ñu ko jox ay doom mm-hmm. yi ñu jënd ko ci ay réew defaruñ ko mm-hmm. kon loolu bu amee dañuy xam ne mag ñi ñoo lay taayal réew mi sëriñ Mountakha lu rëy mu def nii coronavirus bu leen màggal bu leen def dara mu woote màggal gu rëy goo xam rassemblement boobu noonu ci adduna bi lu mel ni mu amul ñu jógee fa amul benn ka contact te ñu xool impact quatorze jours gisuñu koo xam ne am na coronavirus jóge Touba <laughs> ah nga foog ne xasida yi dañ koy jàng ci neen di ko tasaare kon nañu gëm ñaan. mais pourtant sëriñ bi euh, ay Bagdad Cheikh Abdou Khadre Jilaani nga fa tëdd. waaw ay yonent ñoo ngi tëdd foo xam ni dëkk baa ngay tàkk. waaw mais léegi pourquoi Sénégal ak pour lan moo tax fee. waa xam nga mi ngi mel ni. Mhm. man ma julli. Mhm. fanaanee ñaan yàlla yàlla yàlla nga ma may oto yàlla yàlla nga ma may yàlla nga ma mhm. yàlla may ma oto nga ne yàlla lan moo tax mu may kii oto te may ma oto man yàlla. est-ce que yonent yooyu ak nit ñu baax ñoo ñooñu ñaanoon nañu yàlla. yàlla sàmm seen réew ci fin yi te wax naa la ni la mhm. wax naa nettal naa la léegi benn benn euh, baytu fa tabaarakallaahu cheikhul xadim bu mu doon ñaane irham jami al wara si mhm. Seyda Xaaji Maal noonu la ko defee alaaj Abdoulaye Niass noonu la ko defee mhm. mag ñi kenn ku ne dafa ñaan yàlla ci ay bayit yu wér ay sul yu wér ci alaaj Abdou Si Dabaax rek mi nga xam ne moom la ñu nga xam ne moom la ñu fekkee jamonoom xoolal li mu wax bu ma yoroon benn guuxu ndox nekk ci dund ak dee bu ma naanee guuxu ndox boobu dund waaye Sénégal di tàkk mu leer ma guuxu ndox boobu ma ko ci buusoo sottee ci fa safara boobu noonu fa tabaarakallaahu réew mi am jàmm man alaaji Abdou nangu naa dem waaye jox ndox mi ci fay ko safara soo di tàkk ba Sénégal am jàmm xoolu ñu leen jàmm Sénégal jaraloon ah, ku mel ni Serigne Saliou Mbacke hmm? daan génn ni joxe leen ñaan def leen dog def leen di sarax hmm. musiba yi bari daan aw ci réew mi fa tabaarakallaahu kon ñun mais mais mais kon xanaa jarul comme ñi génn naan am ay kilifa danañ faa toog ay li ma gis ak ci at mii ñu dugg ak. yow bi gisoo dara ci 2021. waa xam nga fa tabaaraka la am na loo xam ne am jot la. muy nag damay faral di wax benn wax naan yàlla du xamal wax kat. waaw miin nañ ko yàlla du mhm. xamal wax kat. Mhm. Alaaji Abdu Si Dabaax. Mhm. ku gën a nekk nitu yàlla. dëgg la ñaata yoon la wax ni. sëriñ sàngam wala nitu yàlla ku baax xamal na ma ne ma am na musiba yoo xam ne mi ngi kii ci réew mi. mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi wàcc réew mi. Hmm. Euh, fa tabaarakallaahu nañu fexe. Hmm. Euh, ba ñaan yàlla waaye génn sarax. Hmm. te amaana sax ñi ko jege woon dëgg nee nañu du beneen waay waaye moom la yàlla xamal waaye rus naa wax ni. yàlla xamal na ma xam arab dafa ne ana ana lay sa huwa. waaj dëgg du toog naan mën a waaj. waaj dëgg. du toog naan mën a waaj. moom rusoon na toog naan euh, yàlla xamal na ma nañu ñaan ci réew mi Serigne Saliou Mbacké dañ naan dégg mu ne def leen ñaan rek waaye du wax dara xew na ci réew mi. fa tabaarakallaahu ñun ñoo ñooy sunu kaay mm-hmm. moo tax ay toog naan kilifa dana génn àdduna ba ñu juddoo ba tey chaque weer kilifa gaanuñ <laughs> moom day nekk kilifa ci yow wala bañ a kilifa ci yow. ñu jullit ñi Serigne Salim euh, Serigne Mountakha. Mm-hmm. Serigne Mbaye Sy Mansour. Mm-hmm. Euh, fa tabaarakallaahu Serigne Mbaye Sy Abdou. Euh, fa tabaarakallaahu. Serigne Cheikh Tidiane Niass Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass wala Paa Maay Niass mii xalifa Medina Baye. ñun ñoo ñooy sunu kilifa. waaye chrétien bi cathédrale mooy kilifa. politiciens yi ñi ci am tur nekk ci kaw. Mhm. ñooy seen ñooy seen kilifa. Mhm. kon réew mënul ñàkk kilifa yoo xam ne yàlla moo ni. Mhm. kullu nafsin zaayiqatil mawti. kullu man alayha faanin. ku dul dee amul. te période bu ne ñoo ngi tàgge ay nit di jooy. dëgg la kon toog naan diw dana génn àdduna fan yi diw noo maytu ñàkk xam la rek ay doye di la yu xeeba rek ñun yëguñu loolu ñun gëmuñu loolu. Hmm. ñun lu ñu gëm daal mooy am na lu ñu xam. yëg nañu daal ni Sénégal fi mu toll. fa tabaarakallaa war nañ ko lay taalee ñaan. ñu yëkkati suñu wërsëg ak sunuy teranga woo sunuy mbokki taalibe yu mel ni ñun. ñoo xam ne yaakaar nañ leen ci wàllu yàlla. yaakaar nañ leen ci sellete ñu leen nañu ànd ñun ñaan pour jàmm am ci réew mi ndax responsabilité la na ci kenn ku nekk. bu lum dee dee dee am na juróomi nit yu gëm ne Serigne Jibril Niang. lu mu dee am na fukki nit yoo xam ne yaakaar nañu hmm. am na ñoo xam ne seen guddeeg seen jàmm yëpp hmm. fa tabaarakallaahu lu ñu nekk ñun ñoo leen ci doy hmm. ñooñu kon lépp loo xam ne bu ko defee ñu am jàmm danañ ko def dëgg la fa tabaarakallaahu moo tax ñu def lu mel noonu woote ñaan fa tabaarakallaahu defi berne ngir jàngalekatu alquran waaye dama bëgg wax ne senegal bu ñu bëggee am jàmm nañ fonk alquran alquranul karim waaw inna alquranu huwa almizaanu Cheikh Amadou Bamba moo réew mënoo am ki yàlla ni moo gën a tedd ci réew mi hmm. nga bëgg ko troxal ba pare bëgg nekk ci jàmm xayrukum man taallama quran wa allamahu hmm. ki gën ci yéen mooy ki nga xam ne dafa jàng alquran ba pare di ko jàngale hmm. ñoo ngi nangu ay téere sëriñ daara yi ñoo ngi troxal taalibe yi ñoo ngi jël ay daara yoo xam di leen jéem a tas di fa jël ay gone di leen yóbbu feneen ci ay ay ay association ak i ONG pour ñu leen yar ñun li ñu am lépp alxuraan ñu ko may. Cheikh Modou Bamba mi ñuy sukkal di ko lu mu am alxuraan ko may. moo wax de. Alaaji Abdoulaye Niass ca Kaolack. lu mu am alxuraan ko ko may. daara la Cheikh Seydi Hadji Malick. Tiwaawoon gëla juddoowu fa. su fa mënee am zawiya bu tol noonu. ay njabootam am fa ay titre foncier yu mel noonu. alxuraan tax. jàngale la jàng la def. dëgg la de. ak jàngale. kuñ fiy naw. alxuraan ko fal. te nag naa la xamal leen ñun ñun yàlla moo ñu yàlla moo ñuy suturaal. Hmm. ñun taalibe yi. ñun taalibe yi nga xam ne dañoo dullee yalwaan ba toll nii yàlla moo ñuy suturaal ku ñu xeeb ngoon tàkkusaan ñu jullee la. déedéet waay ah ban enseignant nga mos a gis ñu ko kaay taxawee new bi ban enseignant nga gis mun ñu ne ko kaay kaay kaay tuddal ma sama doom. Hmm, amagul te Sénégal réew moo xam ne fii ngay gisee nit ku mokkal alxuraan ba pare def ko ndam non man je ne sais pas lire je ne sais pas lire le Coran. mënoo dara ci alxuraan waaw ba pare def ko ndam. <laughs> ah man alquran ah jërëjëf jàng leen fule oustaz la <laughs> ah ñun ñoo ko mën a jàng ndam la fierté te naa la xamal lenn képp ku dund ba dee te mënoo xamoo benn saar ci alquran mm-hmm. fa tabaarakallaa lenn mën laa tere dugg safara da ngay jullit ngay jullit lenn mun laa tere tere dugg safara man moom jullit yooyu foofu sax dama ko wax benn diine moom muy islaam nañ continuer ci leneen <laughs> waaw kon pour la uh-huh. mokkal alxuraan daa gën a nekk ndam. Hmm. waaye xam am mokkal ci ay saar farata la ci jullit mooy tax nga mën a julli. dëgg la julli bu amul alxuraan wérul. Hmm. mais am na ñoo xam ne faatiha sax mokkaluñ ko ba pare bëgg ko def ndam ci senegal gi te lu ñu am yëpp alxuraan ñu ko may. lu ñu am yëpp alxuraan ñu ko may. Senghor bu mat le woon du xar toog sëñ Fallou da kaa gëm. déedéet ah, gëm bu mat le woon hmm. du làqot ci ginnaaw sëriñ Babacar Si da kaa gëm. ay xamna na am mën mm-hmm. na ñi tamit ñu am luñu mën de ñu gëm ni ñaan moy mm-hmm. gannaay julit mm-hmm. gëm ni yalla mo ni ñaan leen ñu ma may leen fa iza farata fan sab fa iza farata bo leen paré ci julli fan sab na ngeen sonn ci ñaan yalla cur li fi nek yëpp yaan la ku la raw ci ñaan la la rawé suuf bo opponté dañ ka jal diw mo dégg am lum diwoo waa dégg am na nga dégg ko xamni di laqatu nan man man man gaw ma gaw gaw ma yooyu. Hmm. te bu gudd jotee bu la woowee danaa la man sëñ bi est-ce que mën naa ñëw 23h. te ni gëm. wallaahi. maanaam ay 23h yooyu dañuy recevoir. ay minuit. sama kër gi li fi recevoir kilifa minuit 2h du day day du jeex du xaj. te bu toogee day gëm ni gëmul ñaan waaye des fois mu ñëw sukk sa kanam sukkun goo xam da nga koy yërëm sax day xam ni kii toogaay bu jekk mënu ko. kon fa tabaarakallah pour wax ni. Hmm. yàlla moo yor nguur hmm. moo koy joxe hmm. te li may wax hmm. Macky Sall laa koy jox wax mu dégg ko moo ko Idrissa Seck buñ ñu fontoo déet waay waaw mi tal na leneen nag réew mi tal na leneen taluñu foo ñun ay dañoo mel ni mburoog soow taluñu ko nañu taxaw ci réew mi nañu farlu ci réew mi na leen réew mi ñor juboo baax na ku mën a juboo juboo yàlla bëggul ay jullit yu xuloo sax kum neex na juboo waaye nañu juboo te te an te am ci te ànd ak ngor nag waaye juboo gu ànd ak ñàkk jom fu ne nga fecc fa lu ne nga wax mais moomuñu Sénégal dañ leen dénk réew mi Ablaye Abdou Diouf moo fi nekkoon génn na fi lu am na lu ko fi jiitu woon muy Senghor Abdoulaye Wade ne woon na fi jóge na fi Macky Sall mii dafiy jóge kon jaay ngor xaju fi dëgg la kon liñ gëm mooy réew mi fi mu toll nii moo xam nguur nga yor moo xam sëriñ nga kenn ku ne la la yàlla mën loo nekk ci ndax Sénégal fi mu toll nii taxaw na tem fa tabaarakallaahu am na loo xam sax mënee su ko wax ñu bari ñoo ngi bëgg taal fi na ci Sénégal ah Cheikh Lim Seck wax na ko ci benn plateau seetaan ngeen ko yéen ñëpp ay terroristes yoo xam ñoo ngi bëggoon dugg Sénégal taal géej gi pour pétrole bi fi nekk pour ñu njàkk ah am na loo xam ne nag wax dëgg yàlla nag ku yàlla xam loo yenn yi nag mënatoo noppalu hmm. guddeeg bëccëg da nga ñaan senegal danga ñaanal senegal ñun nag fa tabaarakallaahu takk nañu hmm. ci ñaanal réew mi euh, fa tabaarakallaahu takk nañu euh, ci ñaanal ñun yàlla boole hmm. kaamini bi ko jàngee yéen nañ ci ñaanal Sénégal waaye yéen nañ ci ko xam ne mos nañu lekk sa terang waa yéen nañ ci koo xam ne ba ilaa yoomil haasa danañ lekk sa teranga ñooñu fa tabaarakallaa la ñuy ñaanal yàlla yàlla doolu seen sutura waaye yàlla aar réew mi yëpp yàlla sàmm réew mi waaye def fi koom def fi sutura fa tabaarakallaa ba ndaw yi nga xam ne ñoo ngi génn euh, ci coona ñoo ngi génn di wuti leneen dëkk bi metti na te maa ngi laase appel sàll Sall yenn société yi nga xam ne ay société xëy na ay privé lañu ñàkk nañu doole ba dàq ay ndaw hmm. waaye ñu leen subventionné ngir jëm yàlla ñu jël ñooñu ñu liggéey dafa neexul ci am ndaw nga xëy sa baay amul lum lekk sa yaay amul lum lekk te seen doole new na nga war leen dimbali tey gisoo loo jàpp te Sénégal am na ndaw yu am jom ay kilifa yu leen jàppale lañ amul. kon ndaw yi Sénégal am nañ jom kilifa yu yaafus la noom yu leen jàppale. Hmm. lañ amul. gone ñoo ngi jaay da gis gone goo xam lam tey yëpp mil 7000. waaye na ci am benn 2000 bénéfice rek bu mën a dépassé suba mu dawaat ci kooku bu feebaree xalaatul faju 7000 daa mën a jënd daa mën a jënd ordonnance. <laughs> kon am na lu xew. Hmm. réew mi taxaw war na mën a mat. Hmm. réew mi fa tabaarakallaahu yàlla na fi yàlla dolli sutura. yàlla na fi yàlla dolli jàmm. def fi ay xéwal yu barkeel. yàlla na Sénégal gën ci réewu adduna yi. yàlla na Sénégal ëpp koom ci réewu adduna yi. ci barke yontu bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke rasulullah. macha allah mu mel na sëriñ bi sax noonee nga gisee ñaan mu mel na que Cheikh Mouhamadoul Mountakha joxe na ndigal pour tamit ñu wàcce kaami mu mel na que fekk si nan la sax ci. da da da da daanaka ci rangé boobu léegi sëriñ bi ñu gis ñaan ak seet. Mhm. lan mooy seet ba xam ñoom ñaar danoo war a ànd par force wala nit mën na ñaan rek te du seet wala seet daal lan mooy seet pourquoi seet tamit. waaw xam nga nit euh, fa tabaarakallaahu mën na ñaan te du seet. Mhm. seet ak ñaan butiwuñ dara. Mhm. bokkuñ dara. Euh, fa tabaarakallaahu mi ngi mel ni ki xam boppam. tey fa tabaarakallaahu nga dem ci. Euh, sering bu xam mhm. wala nga dem ci fa tabarakallah feebar dem ci hôpital mhm. ni médecin bi man samay bëtay metti mhm. samay bëta metti dañu xam ne ci ophtalmologue nga war dem wala samay biira metti fa tabarakallah ñu defal ay analyse seet set, ay analyse la lo, kii li ko dal lan moo ko teg examen la examen la seet examen la euh, fa tabarakallah nit taru ñaan lu mën nga ni xoolal leen ma samay mbir boo pare dem doxi say soxla. Ah, ban yaa xam xam say mbir rek xam say coon ak say jafe-jafe di wéy ak moom am na. nit daan la seetal ma. Mhm. nga ko moo xam bu pare nu muy def seetal. fa tabaarakallaa waaye euh, nit tamit dana am aajo. Mhm. dem ci sëriñ ko man li examen laa bëgg ñaaral ma ci yàlla. yaa ngi dégg. Mhm. waaye sëñ amul benn sëriñ boo xam ne mën na ñaaral nit a seetalu ko. Ah, lu amul am nu amul benn sëriñ mi ngi mel ni ki nga bëgg fay te jog ne sigoo ba xam li ko dal lan moo ko teg bopp may metti lan moo tax. kon da ngay tatone boobaa rek. da ngay tatone mi ngi mel ni kii wàccu. Mhm. jigéen ñëw ci yow di wàccu. Mhm. mu ñëw toog fa tabaarakallaahu di wàccu. Mhm. nga jël garabu ku ëmb jox ko ndax ni ku ëmb day wàccu. ah ku pali du wàccu. <laughs> Ah? ko am du waccu manifestation yi mën na bokk tam du nekk benn benn fe benn jàngoro bi fa tabarakallahu maa ngi wax sax naan seet ak ñaan wute wuñ dara hmm. euh, waaye seet mënul dem sans ñaan waaye ñaan mënul dem sans seet hmm. terewul nag benn bu nekk domaine boppam la am na ñoo xam ne fa tabarakallahu duñ seet dañuy jàkkaarloog yow hmm. xam ni kii li mooy aajoom naa ko def balaa nga leen koy wax am na am na koo xam ne ba nga déparé lañ koy ilham ni ko diwa ngi ñëw diw la tudd doomi diw la lii mooy aajam bu ñëwee defal ko lii mu dem loolu nag jege yàlla la. <laughs> macha allah jege yàlla léegi man nag wax fa dëgg yàlla li ma gis mooy seeta taskër yi. Mhm. ndax tamit <laughs> am na koo xam ne bi muy dem ama muy dem ci sëriñ bi di seetlu. Mhm. jubóo naa ko waa këram yëpp waaye bu ca jugee mere ñëpp. waa am na xam nga seeta taskër yi dama naan sëriñ sax ñoo taskër yi. Mhm. ndax fa tabaarakallaahu dafa am yoo xam ne bari na sëriñ mu jox la garab. nga jox ko sa jëkkër biiram metti bari na sëriñ jox la garab fa tabaarakallaahu nga jëfandikoo ko gën a umu mhm. bari na sëriñ jox la garab la nga ci doon bëgg mel ni daa gën a yées juboo nga gënoon bëgg mel ni keroog ba nga ko jëfandikoo la la sa jëkkër gën a jëpp lan mooy waral loolu waa xam nga kamaatara mooy ni nga ko gisee am na ñoo xam ne xëy ne tarbi ñu xam-xam jànguñu ko mhm. damay faral di wax naan Sénégal nga gis sëriñ toog ci émission télé wala émission bu mënti doon moo xam sit fu mënti doon mhm. wax émission ba mu jeex te du wax ay alxuraan maanaam jàngul xamul dara Sénégal nga koy gis ni moom sëriñ la sëriñ la mhm. te day toog émission ba jeex doo dégg mu wax benn ay alquran senegar rek koy gis te na sëriñ la moom mën na nekk fajkat ndax faj affaire xam-xam sunguf ak reen la mhm. am na ñu mën a faj te xamuñu benn baax am na mën ko waaw mhm. waaye sëriñ sëriñ ay al ay ay ay alquraanu yàlla bi la ak xadis yonente ak téere mag ñu baax yi sëriñ daara <laughs> sëriñ daara sering alquran mhm. waaw bu dul loolu nag bu dee yoroo alquran mom mhm. nañ la woowee féticheur nañ la woowee njabarkat nañ la woowee leneen waaye doo sëriñ kon kon wax fa dëgg yàlla ñooñ ñoo tas këri waaye du sëriñ si déedéet sëriñ boo xam ne lu mu bëgg def mhm. alquran wax na ni mu koy defee nga ñëw damay faral di wax naan euh, boutique bu ne lañ fay jaayee marchandise ba fa nek client yooyu fa lañ jëm ba ma nekkee sëriñ ba tey ndeg di yëngu ci wàllu ñaan ba ma sëriñ ba tey di yëngu ci wàllu ñaan nit mus sa toog ni ma dof loolu ma nit musta da nga kaa ñeme nga xam ne kii yàllaay kilifaam nga xam ne kii gëmul sa alal yàlla la gëm nit mu sottoog ni ma de dëddaleel ma kii nit kenn ku ne waaye am na sëriñ soo xam ne boo gee ñu la nit am na sëriñ soo xam ne boo gee ñu def la nit ba mu tàqali koog sogoom liggéey sa doom ba muy sàcc liggéey sa doom muy wër di jaay boppam sa doom am na maanaam liggéey ki nga bëgg ñu liggéeyal la ko ah, ah. nga sàcc la ñu liggéey la doomu jàmm sa doom wujj wala sa doomu leneen hmm. ba muy tàqali koog boppam waaye ku ñu loo ci àll ba bu ñëwee fi ma faj ko ku ñu dëdd lay mbokkam bu ñëwee ma delloo ko ci mbokkam ku ñu nawtal ba muy sàcc wala ku ñu nawtal ba muy naan sàngara hmm. bu ñëwee ma dëddale koog loolu hmm. ñun dañuy defar waaye du ñu yàq macha allah <laughs> namoon ngeen ko <laughs> Serigne Djibril ña la yéene ko laajte woon marabu des grands sëriñ bi xëy na nag laaj bi nii tëjee mooy gaaya ni ñu laaj la ko ñun nag wax dëgg yàlla ñu ni gëjoon nañ la gis ci kanamu écran yi lan moo taxoon te Serigne Djibril ñoo xam ne da la doon wettali ko dëgg yàlla toog ba saa gisatul la fenn fenn fenn du site du télé du dara. waaw fa tabaarakallaahu xam nga réew mi moo jaxasoo. Mhm. buñ demee loo xam ni. Euh, fa tabaarakallaahu bu njëkk wane xam-xam la woon mhm. waaye bu ñu demee ba fa tabaarakallaahu léegi da ngay gis sëriñ boo xam ne li muy publicité coca na ko publicité pardon da gis sëriñ boo xam ne li muy publicité mhm. na ko publicité mhm. foo tourné gis ko ñu xam ne ñun xam-xam lañ doon wax jàngale lañ bëgg lañ bëgg def yéen nit ñi lañ bëgg def fa tabaarakallaahu euh, xam xamle nga xam ne li ñu xam nga xam ne lu néew la ñaan nañu yàlla deew moom bu demee ba loolu bari fa tabaarakallaahu tamit waaye yàlla dogaloon ñu nekkoon ci yeneen mbir yoo xam ne suñu mbiru bopp la du lépp lañ mën a wax fa tabaarakallaahu euh, yàlla dogal amuñu woon jot ci lu bari ndax suñu bopp lañ gënoon tal euh, fa tabaarakallaahu ko génn di wax ñu nekkoon ci yooyu ñu gis ni nag wax dëgg yàlla wax bi bari na nit ñee ngi réer Euh, fa tabaarakallaahu jaamu yàlla yoo xam ne ñoo ngi sàkku ci ñun xëy na ñu ñu ñu ñu ñu def continuer suñu waxtaan yi mm. fa tabaarakallaahu ñoo ngi leen wax bëgg nañ ko gën a bari le mm. ngir jàng ak jàngale mm. boo gisee ni lii bon na ba fa tabaarakallaahu dootuma waxati day gën a bon waaye nit ñi fa tabaarakallaahu euh, dañuy faral di wax naan arab moo ni boo waxee rek ñu xam yaay kan te ay nit fa tabaarakallaahu bu ñu waxee nit ñi borom xel yi may faral yàlla boo gisee mu ni euh, fa tabaarakallaahu foo gisee fu mu tudd mbooloo hmm. daan ay borom xel lañu hmm. fu mu tudd mbooloo da leen xas hmm. yàlla xoolul qualité xoolul quantité yàlla qualité lay xool ah. am na nit ñoo xam ne yu néew lañu am na nit ñoo xam ne ñu jub lañu ñoom li ñuy xool mooy fa tabaarakallaahu nit ki waaye am na ñoo xam ne ku ñu dégg seeti ko dafa am nit koo xam ne fa tabaarakallaahu euh, du ñu tudd turam dafa ma mosoon wax ni ma damaa bëggoon nga nga noobal ma benn nit manam fa tabarakallah ndax dañuy liggéey mom hmm. euh dama bëggoon mu jox ma bopp mu sopp ma dal hmm. ah mané lool loolu de lu baax la ndax kenn ku ne bëgg nga sa patron sopp la hmm. nekk di góor jigen bu bëgg ma nobal ko góor la waaw sëriñ bi li doy war waar moo tax sëriñ day xam damay faral non sëriñ dëgg bu dee luñ ko wax xamu ko doon sëriñ ñu jëflante ci fa tabarakallah ba ma ba xam la ca bir uh-huh. ma wax ko la ca nek uh-huh mujj jigi deug yalla luar deful dara du lu wër di suru der waaye ku gis kuy nob gor na man ka xamni fa tabarakallahu gor jigen ni mu mel ci aduna bi nga xamni ni bëgg am senegal doole ñu bëgg ko xex bo fekke ma tok naan ma nobal ma sama morom gor yam waaye nag xëy na nangul lañ ko ko defal ndax amna ño xamni luñ dundé rek wër ñun nag dañuy sédd àdduna sedd biir bàmmeel sédd loo xam ne suñu njabooti ëllëg hmm. ndax bari na lu xaraam looy dundee foto fa laa boo ci yore sa doom mënul nekk dara lu dul kuy dundee lu xaraam mag ñi boo gisee ñu bëgg lu doon lu dagan lu dagan lu dagan bàmmeel tax na waaye ragal yàlla tax na waaye njaboot moo tax loo ci gis ku mel ni Serigne tubaa laa xaroo mu jul ku mel ni Serigne Saliou Mbacké laa xaroo mu jul ku mel ni Serigne Fallou hmm. koo ko xoolee ku mel ni Cheikh Seydi Hadji Malick hmm. dundee lu xaraam demoon fa laa ba bay woon nag du lekk yàpp araamul waaye dakaa araamal ci boppam ndax ma ngay daw nag ba lekk musa dugg ci toolu jaamu sàcc fa dara nag bu sàcc nga xam yàlla topp ko dara rus na moom lekk yàpp boobu mu far bàyyi nag du lekk ndawal xolal xolal lu mel noonu moo tax yàlla fa ku mel ne sëriñ baaba Si ci personnalité am mm. ci wilaayaam ci matam mm. kon ñu nit wax dëgg yàlla nag yàlla ma doon mayee moo fi nekk mm. ñun nag xëy na duñ dara waaye ñaan na yàlla sunu doom yi gën ñu foofu xaaw ñaan nañ yàlla suñu doone gën ñu foofu mm. kon moo tax fa tabaarakallaahu lu mel noonu moo taxoon ñu wàññi woon génn bi waaye bëgg nañ continuer di yee umatu seydina muhammad sallallahu alayhi wa ndax li may faral di wax naan mm. li yàlla bind lépp mi ngi ko bind ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mm. li yàlla bind yëpp mi ngi ko bindee ci barki yunus yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye da ngay xool gis ni umar seydina muhammad ñoo gën a pauvre da ngay xool gis ni feebar yu bani umar seydina muhammad lay gën a dal da ngay xool gis ni fa tabarakallah am na ñenn ñoo xam ne sax ay jul lañu woon waaye woon nañ leen ci financé alal ba ñu wacc fi diine l'islam fa tabarakallah nekk ci diine chrétien ndax ñàkk kon yàlla na yàlla musal ci ñàkk yàlla na yàlla dàqal umar seydina muhammad ci ñàkk yàlla na yàlla xetali umar seydina muhammad ci ñàkk waaye maa ngi joxe benn may boo xam ni képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci ñàkk heure boo xëyee suba defal laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi 92 laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi 92 ku ko def mucc ci ñàkk inchaa allahu rabbi tey de laa koy tàmbali waaw yàlla na ci yàlla def barke képp koo xam ne saxoo nga ko yàlla da la musal ci ñàkk te ñàkk rek a jër a muslu am na ay ONG ñoo xam ñoo ngi xeex pauvreté ci adduna bi waaye damay faral di wax naan dañuy suuxan ñàkk ba pare di xeexee ñàkk-ñàkk waaw waaye yàlla rek moo ñu mën a tàqalee ak ñàkk ndax ku am moo la jox waaye ku ñàkk moo la xañ mm-hmm. yàlla nañu a jox ay milliards yu bari yàlla nañu a jox ay teranga yu bari ci barki rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi jéggalu képp koo xam ni fa tabarakallahu yaakaar nga ni ñun Serigne Jibril am na luñ wax mm-hmm. euh, am nga loo ci gis loo neexul ñoo ngi jéggalu mm-hmm. xam-xam rek la ñu bëggoon wax mm-hmm. njëriñ rek la ñu bëggoon wax mm-hmm. jëriñ nit rek la ñu bëggoon wax yàlla moo dogal jëflante fa tabaarakallaahu saa su ne mënul yomb comme ni nga ko bëggee ndax kenn ku nekk am na emplata boppam kon ñoo ngi jéggalu bu wér di ñaan yàlla yàlla dolli sutura ci barke rasulullaah sallallaahu alayhi wa sallam macha allah sallallahu alayhi wa sallam Serigne Jibril ñang la <laughs> namoon ngeen ko moo tax moom it yaakaar naa namoon na leen ngir saa su ne lii moo ko ñor joxe xam te it saa su ne noonu la koy defee dafa bañoon lank ni du génn waaye yéen a gën a xam ni <laughs> rajo Dakar international moom wax fa dëgg yàlla fu njariñ mën a ne dana ko jëli indil leen ko ci jotaayu xam-xam ànd ak cun bëgg bàmba kon da leen di jox dig daje beneen yoon waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ne ragal na ni njabootam yi ko yàlla booleel ne kon ñoom buñ ko doon def fii lañuy fanaan wala ñu yendu fi ne buñ ko mënee sax est-ce que yàlla dana ko nangu waaye nee na nit ñu am valeur yu mel ni ñii fi teew di ay soldaaru alquraan yi fi teew ay taalibe Seydi Cheikh Ahmed Tijaani yi fi teew nga xam ni ñoom seen bëccëg ak seen guddi lépp yàlla la lépp alquraan la lépp salaatul fatiha la ne fa tabaarakallaa kon ñooñu bu ñu fi teewee ne day gën a matale ne gën a jekk gën a baax te yàlla ci lay gën a nangoo ne xamuñu sax baxa ndax ñun am nañ ijaaba wala amuñu ijaaba waaye rafet na njort ci ni ñi fi teew ñépp seen allahuma yàlla du ko desal gannaaw nee na loolu moom rafet na ci njort ne kaamil yi nu fi jàng nag jàngaluñu ko ma sàmba jàngaluñu ko ma demba ne ñun daal ñoo yëg ni fi réew mi toll kenn ku ne am nga responsabilité kenn ku ne am nga responsabilité yéene woon na képp ku ci teew ci bis bi yàlla yàlla faj sa aajo yal na yàlla sàmm la yal na yàlla aar la yàlla ubbi sa mbooloo mi buntu wërsëg yokk say sutura yokk say teraanga maa ngi ñaan nag kaamil yi ñu fi jàng yàlla na nekk sunu sauvetage yàlla na nekk yi ràmm yàlla nañ fi jóge ñun ñëpp yokkoo ci ci barke yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa nee ñun nag xamuñu lu dul lii bëgguñu lu dul lii gëmuñu lu dul lii ñun ñaan rekk lañu gëm alquraan rekk lañu gëm moom lañ ñu yare ñu juddoo ndar jàngee fa ci ja daara Zeydul diin Jóob balaa ñuy gimbi dem Kawlax te Seex Muhammadul Basiru Saar mooy waajuru Cheikh ma Tidiane Sarr bee toog nee moom mooy sunu sëriñ jàngal ñu yar ñu fekk sunu waajur nag suuxat ci ñun mbëggeelu alquran waaye nag mu ñëw yokk ko dëgëral ko ba bëgguñu gëmuñu lu dul alquran ne ku ko xam di jëflanteeg moom takkoog moom xam ni boo xamee benn aaya nangu naa la boot ci sama gannaaw gi nangu naa tëdd ngay cëppi-cëppi ci sama kaw ngir alquraanul karim ne ku ma suufee ku ma suufee sa kanam alquraan a tax du ma doy di ci kanamu kenn ku ma jox cër ku ma jox orma alquraan a tax ne seen jëmm yi billahi barka Cheikh na Ahmed Tidiane moo ma gënal président Macky Sall seen jëmm yi yéen taalibe yi yéen ñii ne mënu ma jox leneen ndomba tànk la ma mën a jox bëgguñu ko daara la ñu am xaalis la ma mën a jox li yàlla dogal ni sama wërsëg kenn mënul fexe ba du ma ko lekk bala maa génn àddina waaye yéen ahlu alquran yéen ñii seen teewaay sama kër gi ne sécurité la ci man sécurité la ci yéen garanti la ne bég nañu lool kenn ku ne maa ngi lay jox loxo xol di saafonteeg yow di jonjanteeg yow di la wax ni xamal ni ñun bég nañu di la wax ni li ñu defal tey xam nañ ko te incha allahu rabbi ñaan yàlla fayanti koog yéen ne Serigne Moussa Ndaw di sunu mag di sunu xarit ne eh, fa tabaarakallaa di ñu taxawal ci lu bari eh, ne yàlla may ko mu nekk nit ku baax di mu xaddamu nag Serigne Serigne Abdoul Aziz Al Amin moo ko defal ijaza muy mu xaddamam Moussa Ndaw bii toog ne kon yàlla na yàlla guddal fanam yàlla yokk wéram yokk suturaam ci barke yonent bi sallallahu alayhi ne ma ngi leen di ñaan loo xam ni mëna lu ma ko sama bopp moo ko mënee tamit lottu naa ci muy waajuram bu jigéen nee ñu ñëpp ñu ñaanal ko yàlla gudd fan ak sama sëriñ cheikh Mouhamadul Basiru Sarr ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne boobu ba léegi nag ñu ngi dégg ma naan sëriñ Bay sa Abdu mi ngi ñëw yàlla dogal na mi ngi ci yoon mu nekk fa tabaarakallaahu sunu waajur mu nekk sunu waajur nekk ku baax nekk ku baax ku bëgg alquran ku bëgg alquran ku ñu bëggal boppam ku ñu bëggal boppam ku ñu teel boppam ku ñu teel boppam ah, wax dëgg yàlla ne wax dëgg yàlla mi ngi ci yoon mi ngi ci yoon sànq sëriñ Habib sànq sëriñ Habib bu sëriñ Mbay Si Mansour bu sëriñ Mbay Si Mansour moo ko woo ko est-ce que jël ngeen matukaay yi mel ni masque yi ne ñëpp takk seeni masque ñëpp te bu ñëwee bu ko kenn jox loxo loolu rek moo nekkoon kàddu yi bu nu jàngee xatmu bi ba pare ne ay imaama fi nekk ay doomi daaraa fi nekk waa am na ñoo xam ne xëy na seen jàkk yi tëjuñu ko